ndaje bi fii comme ni ñu koy defee at mu ne mooy euh, dañuy woote pour euh, fësal li nga xam ne ni euh, mbir mu mu am solo ci réew mi mooy suñu digganteeg bitim réew jokkalante bi lu joxe ndax lu am solo la ndax bitim réew kenn mënul tëju force nga jokkalanteeg bitim réew da ngay jënd ji dara bitim réew da ngay jaay bitim réew tam Euh, balance de paiement li muy firndeel rek boo ko xoolee day xool sama suñu digganteeg bitim réew euh, bu nu wàccee at mi jeex ndax ñun la li dugg ci xaalis moo ëpp li fi génn ren nag nin ko waxee am nan déficitu buy tolloog juróom benn fukki milliards daaw 2021 amoon nan excédent loo xam ne ni lu fi duggoon la lu toll ci téeméer ak ñeent fukki milliards li ko waral nag mooy ne ñëpp a ko xam anne deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois yu dafa xaw a metti ndax àdduna bi xaw na jaxasoo njëg yi yokk na te loolu dafa laal ñun li nga xam ne ni dañ koy ko dañ koy am mooy li nga xam ne dañ koy jënd bitim réew lu mel ni lu ñuy lekk lu mel ni aussi euh, pétrole bi nga xam ne ne moom la ñuy doxalee suñu usines yi ak suñu kër yi euh, waaye li ci am solo rek mooy ñu waxati ko mooy euh, ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew muy suñu diaspora bi muy suñu moodu moodu yi ren tam dugalati nan deux mille vingt deux luy toll ci junni ak juróom-ñaar téeméeri milliards ci réew mi nga xam ne ne boo ko doon xayma euh, li Sénégal euh, di di di di alalu Sénégal buñ ko doon xayma di ko wax PIB bu dee téeméer fukki yi ñoom liñ dugal toll na ci donc loolu daal day wane ne ñoom itamit ñi ngi euh, def seen loxo ci yëf yi balance de paiements nag li ci am solo rek mooy ñu siggi xool fan lañ jëm fanu jëm mooy à partir de 2024 incha allahu ak pétrole ak gaz bi nga xam ne danañ ko commencé di ko di ko di ko euh, produire di ko jaay Sénégal dana fexe ba li muy jaay bitim réew dana yokk lu baree baree bari te dana tax balance des paiements bi benn day nekk lu excédentaire léegi kon ñun li ñuy gagné moo ëpp waaye am na lu ci am solo lu ñuy wax balance courante mooy sa digganteeg bitim réew bu bu la kenn ñëwul jàppale ndax da ngay yor loo xam ne ne mën nga ko leble walla da ngay lebi balance courante bi nag. dafa déficitaroon lool lool lool ndax projet yi pétrolier yi ma wax ndax liñ doon jënd ci bitim réew tam ci ci ci ci dund ak euh, ak pétrole balance courante boobu ren 20 pour cent PIB la woon déficit am nañ yaakaar à partir de 2024 danañ yegg ci 5 pour cent liñ ci yokk nag te loolu euh, lu ñuy ñaan sénégalais yi la bu nu xayma li ñu jële bitim réew ci ceeb dugal ko ci réew mi un million cinq cent mille tonnes la presque un million cinq cent mille tonnes kon nag bu nu bëggee balance de paiement bi ñu continuer di ko mën a euh, teg ci yoon il faut que tam Sénégal yi xoolaat bu baax ndax vallée du fleuve baa ngi fi war nañ mën a bay ceeb waaye un million cinq cent mille loo xam ne ne da koy da koy importer muy ceeb muy blé muy suukar muy meew luy peser lool ci balance de paiement bi loolu nag euh, dañ koy woo rek woo opérateurs yi woo sénégalais yi ñu jéem a mën a favoriser consommer local ndax buñ ko defoon li di rek mooy ñun dana fexe suñu facture li nga xam ne ni euh, lu ñuy jënd bitim réew deux mille vingt deux mille cent milliards muy junni ak téeméeri milliards dépensé nañ ko ci pour luy sénégalais yi lu ñuy lekk. alors que dëkk bi yaakaar naa ne war nañ ko fee. balance bi bu ñu ko xoolee bu baax li ñuy wax balance commercial dafa déficitaire mooy li ñuy jënd ci biti ak li ñuy jënd ci bi ci li ñuy indi ci réew mi euh, li ñuy li ñuy jaay bitim réew lan lan moo ci ëpp bu ñu seetee ñun li ñuy jënd bitim réew moom moo ëpp bu ñu ko xoolee ci service yi également euh, service yi ñuy jënd bitim réew moo ëpp service yi ñuy jaay bitim réew donc balance courante bi dafa déficitaire global loolu nag. dafa am lu ko atténuer mooy euh, suñu mbokk yi nekk ci yeneen dëkk yi yónneen yi ñuy def ci biir réew mi toll na ci mille sept cent milliards ci année bi loolu atténuer na lu bari suñuy capacité yoo xamante ni mën nañ ko utiliser en termes de devises pour acheter à l'étranger mm-hmm. leneen li également mooy investissement yi nga xamante ni bitim réew moom la def ci réew mi boo xoolee investissement yu bari lañ def ci secteur pétrolier permettre Sénégal mu daal di am les infrastructures nécessaires pour exploiter pétrole te loolu dina ñu permettre pour 2024 ñu gagner des point de croissance presque à deux chiffres permettant au Sénégal de consolider croissance bi nga xamante ni moom lañ am at at yi passé loolu nag dañ ciy continuer politique boobu la gouvernement du continuer PAP 3 bi gis nañ ko mooy plan d'action prioritaire numéro 3 bu Sénégal dafa jël industrie mu def ko priorité industrie nag bu ñu ko defee priorité mooy que ni li ñuy importer une grande partie dañ koy produire sur place te loolu moom mooy consolider diversification bi nga xamante ni moom lañ entamé depuis quelques années notamment en faisant des une transformation produit yi nga xamante ni moom la ñuy eh, produire ci ci biir réew mi mais également ñu daal di consolider domaine yu mel ni agriculture bi nga xam ne moom mooy nourrir le peuple sénégalais et pour cela aménagement yi gouvernement bi nga ko yokk depuis quelque années moo tax ñu daal di combler gap yu bari yoo xam ne si amoon nañ ko ci importation euh, ceeb par exemple et loolu dañ koy continuer pour que véritablement euh, sur euh, euh, côté importation produits alimentaire ñu daal di ko atténuer politique yi nag dina continuer également pour comme je l'ai dit dans l'industrie parce que industrie manufacturière moom mooy développer réew mooy consolider ay emploi et loolu gouvernement bi mi ngi ciy def lépp lu mu man pour pouvoir pour pouvoir atténuer ça ba pare soutenir également secteur privé parce que l'entrepreneur privé moom mooy la clé du développement et donc euh, soutien euh, secteur privé bi dañ koy continuer avec le, la stratégie de développement national du secteur privé pour ñu continuer euh, consolider également seen contribution ci croissance économique du Sénégal